dañu waxoon ne dañuy sopp dañu doon jéem sopp jéem sopp mu doonu ticc léegi nag dañu dañuy yeewi fi mu toll képp ko xam ne koo xam ne sax looy def bëgg mu am barke da ngay tudde yeewi kon yeewi moo xew yeewi moo am dañu war a yeewi askan bi Macky Sall nag dañu ko yëgal ni suñu réew mi loo xam ne jeexal nga pare da nga koy yàq kooku duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg da génn ci nii wala nga génn ci naan akam nag du ko fekk kenn du ko fekke mbokk benn moom wax na ko léegi neen bisu dee bu taxawee ku bëgg dund doo gor te lépp loo gis mu am jëm kanam dafa am ñoo xam dañu wa dañu tayri seen bakkan lisaa mbalam ba ba mu daan taxaw ay bakkan ñëw tëb buur yi fi nekk tey réew yi ba mu naa taxaw ay bakkan tëdd ay mag ñoo taxaw ay ndaw ñoo taxaw ba defar réew mu jaar ci yoon dama ne suñu réew dinañu ko defar ci nii wala ci naan waaw lu ñu tax a déplacé fii daf ñu ñor parce que ñun ñu ngi jógee bés Birmingham depuis 6 heures du matin pour assister lii xam nga ku def loolu nga bàyyi sa liggéey bàyyi sa famille boo ñëw boo ñëwee fii nga xam ne li ngay def ñor na la léegi dañuy lancé appel à Macky Ousmane Sonko mhm. bu karawam dara bu ci dëñee mhm. waxuma la bakkanam du rot mhm. Macky Sall ak njabootam du ñu ko fekkee te sénégalais yi nañu yeewu xam ne am leader bu mel ni Ousmane Sonko yeewu yombul toog nañ fi ñu ñàkk ku mel ni tey ji ay Cheikh Anta Diop ñu toog di ñu ko nettali ñu di ko jooy bu ñu toog ba nga xamante ni loolu dañuy dalaat nous sommes africains. on se tape la poitrine la première constitution c'est eh, a eu lieu au Mali en 1236 j'ai voulu parler de la charte de Kouroukanfouga. Nous on n'en vit pas de l'ONU. Nous avons notre propre ONU, qui est Kouroukanfouga. Malheureusement pour nous, Africains, on connaît seulement l'histoire de l'Europe, et on ne connaît pas l'histoire de notre On nous parle de Charoy. Pourquoi Charoy Tout le monde sait, c'est une histoire triste. On nous parle de l'île de Gorée. Pourquoi l'île de Gorée C'est une histoire très triste. Malgré la tristesse de cette histoire, les Africains doivent s'unir à cause de cette tristesse-là. Parce que c'est là où les Africains ont, ont, ont déterminer les Africains pour seulement vouloir réclamer leurs droits. Ce sont eux-là qui nous donnent des leçons de morale. Et nos dirigeants comme Macky Sall et François euh, euh Macron s'asseyent ici, dire qu'ils va appeler à Koufou Ado pour demander à Macky Sall et Alassane Ouattara de, sanctionner le Mali. Ils se trompent. Ils se trompent. Le Mali ne va pas s'agir aussi facilement. bu ñu xeexul woon seen dëkk bu baax ba ñuy ñëw di leen fekk si. muy dëgg. Sénégal dañu war a dëggal seen bopp. yes jële fi Macky ndax bi fi nekkee ba tey. yàq rek la fi nekkee. gëmul dara. yàq na jikko yi. yàq na lépp dafa doy. <laughs> dafa doy nañu jóg dëggal seen bopp ndax nañu gëna a xex bi muy gëna a ci ñoom nañu jóg deugal seen bop té jël fi Macky Sall xool ku leen toy ñu teg ko mu defar réew mi ndax réew mi yàqu na nañu deugal seen bop té bayyi ragal bi euh, bobu nak moy li rek yéen jëpp ay patriotes ngeen on est là tay pour dénoncer la dictature de Macky Sall Macky Sall tout ce qu'il fait actuellement c'est pour juste un troisième mandat et ça, on ne va jamais l'accepter. Oui. Quels que soient quel que soit les problèmes. Vous voulez qu'il y ait tout le Sénégal. Mhm. Oui, tu vous avez comme ça. Mais Macky ne se pas, jamais. Et quant à les élections <laughs> législatives, soit moi ou bien les candidats n'ont qu'à venir, ou bien mon ça, il ne sera pas là. Ou bien ça, élection, ça doit Sénégal, ñoo koy njëkk a yëg bu ma ñun ñii extérieur si ñun lay njëkk a motax nak ñu ñu mobiliser ñëw fii nii ci ambassade bi dénoncer Macky Sall injustice bi nekk di am ci suñu réew bu koy naxarlu bu baaxa baaxa baax di demander vraiment le départ de Macky Sall. nga xamante Macky Sall loolu la bëgg salfañé salfaañe du suñu liggéey ñun tuuti nañ ci torop ay génération des centaines d'années ñoo ko liggéey Sénégal depuis bu di bote depuis les années 1800 tey on est en 2022 ay dëkk yoo nga xamante ni ans ci ginnaaw ci lañ dugg ci démocratie tey ñooy xàll yon bi di woon Sénégal fan lañ jëm ci wàllu démocratie gaa est-ce que loolu yoon la est-ce que loolu yoon Non! donc kon suñu war a goon la tey ñi taxaw fii xeex loolu te loolu dañ koy xeex ba fu xeex mën a mais on va faire tout dans la légalité nous sommes des légalistes dans la légalité on va se battre dans la légalité nous allons résister aujourd'hui le pire est là représenté par Yunus les autres partis politiques sont là ils sont dans la coalition mais li gën am solo li

nous demandons une participation de tous aux élections législatives. Nous voulons des élections libres, transparentes. Nous voulons des élections équitables. Nous voulons des élections organisées dans la légalité. Donc, le message Aujourd'hui, vous devez être fiers de vous parce qu'on est ici en live, on est en synchro avec les télévisions locales au Sénégal. Donc, nous,